Babacar fay laa tudd di chef de quartier Thierno Kandji donc kon bénéficiaire laa ci projet bi. projet bi comme niñ ko waxee sànq niñ ko gisee mooy euh, am na solo lool parce que ñëw na ci heure am te déroulement bi aussi niñ ko war a dérouler aw na yoon donc kon ñëw na heure am gis nañ ci suñu bopp wax dëgg yàlla sant nañ ci bu baax a baax. ni ngeen ko gisee ñu gis ne yan façon ndimbal moo ñëw concrètement. bon ndimbalii yi ci ñëw mooy am na xaalis bu ñëw bu am solo ak euh, sungufu jaboot boo xamante ni am na solo aussi pour xele yi nga xamante ni commencé nañ de zéro à cinq te bi ñu defee test bi pour jox leen ko gis nañ ne am na solo lool surtout jigéen ñi nga xamante ni dañu wanoon lor. ndax képp koo xamante ni jël na ko ci un mois yi rek gis nañ ne am na amélioration boo xamante ni def na ko ci moom donc kon jàpp nañ ne am na solo trop. projet bi mu mel ne yéen waaw bi muy tàggoo sëngeem nañ ndaxte dafa ñëw am solo ñu am yaakaar bu baax mu dëkk ak ñun ba faw donc kon bu ñu gisee muy jeex rek. wax dëgg yàlla dinañ sëngeem te ñuy sàkku bu mënee gën a dugalaat loxoom mu dugal ndax am na solo lool li mu yokk mooy koom-koom bi comme ni ma ko waxee yokk na maanaam yu ñu waroon a mën a def te mu manqué woon dimbale nañu ànd ak ñun ba loolu mën a nekk ci wàllu sunguf boobu ma la wax itam xele yi gis nañ ne ñi ci jote jaar gis nañ changement bu ndaw boo xamante ni bu continuer woon yaakaar naa fi ñu bëgg xale yi àgg fa ci wàllu lompoñ yooyu dina deñ ak ñi nga xamante ni war nañ lor biñ ko commencé utiliser gis nañ ne am nañ ci ñoom yëg-yëg boo xamante ni am na njëriñ lool ba bu continué woon wax dëgg yàlla dina gën a am solo daal. defu leen yenn pexe yoo xamante ne su projet bi demee yéen ngeen jéem a def lu ñu waa pexe bi ñu ci def mooy que ne projet bi ñoom bi ñu ñëwee surtout euh, sunguf boobu ñu wax ndax moo ñu gën a amal solo ndax xaalis bi mën na ñëw du yàgg mu jeex ndax lim fi fekk mais li composé sunguf soosu ñoom ci biñ ñu koy jox am na njàngal bu ñu ci jàngal boo xamante ne tey ñun bu ñu toogee war nañ ko mën a defal suñu bopp ndax yëpp mu ngi ci suñu biir fii ñu nekk donc kon loolu yaakaar naa am na ñu ci commencé di composer sax. di ko defar pour ñu mën a am lu mel noonu kon loolu aussi tam lu am solo la ci kii bi daal